bébé garga ndeysaana moom leen jàkkaarloo nekk ikiri booy sëy booy maana moom leen jàkkaarloo moom moo ñu wan gannaaw yor ngembulu zone li nekk ikiri rëbës deuxième combat de la soirée ndeysaanam addu suble na booy maana bébé garga mu ngi ñaan wala mu ngi jat boog lañ bëgg a wax ah saa tel naa joxe benn moom booy maana bébé garga booy maana bu mel ni premier combat bi kat léegi ñibbi booy maana Babacar booy maana ndeysaanam moo ñu wan gannaaw Babacar moom lañ jàkkaarloo Babacar mu ngi cokkaas booy maana Babacar Ga deuxième de la soirée Ahmed Lekara woo ñu fi tey ndeysaanam grand bi dox diggante Ndandi Fall ak Dame Sène ndeysaanam grand yëf ak parcelle la booy maana ndeysaanam jàppante na ñoom ñaar Abal Saliou maa lay siyaare. maa lay dellu siyaare si te. noo gisee deuxième combat bu si biir géew bi. waaw diggante Bébé Garga ak Boy Maana daanaka danoo léewtoo rek daw jàppante kurpañ bu dal amu ci xëy na danoo nar a mbapat wan ñu jël bu Boy Maana Bébé Garga ndeysaan ñooy mu mel ni bu mel premier combat bi léegi ñu maana daal fu mu ah, baax na Boy Maana daal fu mu baax na Boy Maana Bébé Garga bay saanam Boy Mana Bébé Garga isaanam yàgg na waa nañ bëree day saanam dam sen oh. dama parcelle ba ngoog moom dam arbitre soufflé na arbitre bi soufflé waat Maana Bébé Garga Maana moo ñëwoon ginnaaw Bébé Garga lu ñu jàkkaar lool day mi temps mbokk Maana Bébé Garga hey Boy Gaga doon na leen coup bu dal hey Badou Kao Badou Kao Boy Gaga Bébé Garga ngoog hey Boy Maana ah. Bébé Garga jàpp na Boy Maana Bébé Garga Dame Sène tay dina daaji paquet du daaji paquet Monokho Dama ngoog dina daaji du daaji gaaga Bébé Gaaga xar na ko dina ko daanam du ko daan da koy daan Bébé Gaaga daan na Boy Maana da koy xar lamb nangu ak li lamb bañ Boy Sila Angola xale yaa ngi noonu abi baa ngi wax ak ñoom li lamb nangu ak li lamb bañ Boy Sila Angola maala bu xaar ngi noonu dang ma wax Boy Sylla Angola Boy Sylla lañ jàkkaarloo Angola mbokk yi moo ñëwoon gannaaw tey xale yi xoolal ma la mu takkoo tey mbër mbër daal gi noonu waaye lamb gi noonu mbokk yi Boy Angola Angola mbokk yi booy xool moo xaw a su ci ci taxawaay waaye Boy Sylla mi ma gis faalul njool moom Boy Sylla ane na ba mu neex ba mu taxawaat dagg léwtoo bi waaye Angola moo ngi ne teg Boy Sylla daw na song ko dóor nañ ko xeex ba daw na jël ko moom Angola xeex ba engagé ko Angola xeex daw song ko waaye Angola mbokk yi boo xool Angola jàpp na Angola jàpp na ëñ na ko am na benn loxo ci bokkotaan waaye Balla nuyu naa la. su loo nekk. mais zone bi nga koy jox. <laughs> Boy Sylla Angola. Boy Sylla Angola Angola moo ñëwoon ginnaaw Boy Sylla lañ jàkkaar lool. xale yaa ngay jàppante. Ndandi Fall ngay tuus. Angola fam jàpp sori na oh baake na ko mu bañ. baake na ko mu ko mu bañ. da koy daan Angola daan na ko Angola daan na Boy du sant bu baax. mais naka waaw comme niñ daan ñëwee rek. yow mooy loolu sëñ Fall wax baaxul. dañ la ko mënut a bañal yow suñu jóg nga mais lépp lépp a ngi si suñ kanam. waaw baax incha allah jaajëf. Dame Sène ak Ngok tey paquet bi dina daajee ko wala. sant rek. nañ ñaan rek. naka nga gisee Ndandi Fall tous. waaw tous na. Ah. tous na. tey naka nga ñëwee waajee ko bés bi tey. waaw loolu nag incha allah ci kàddu yàlla dañ koy wane. Ah. du lu ñuy wax. abi sifflé na Aliou Kaza Boy Niang Tapha Niang Tapha Niang Aliou Kaza Tapha Niang dugal na léegi a xeex Aliou Kaza eh, moytu ma ko tey daan vite fait bien fait Tapha Niang vite fait bien fait waaw waaw. xaalis bu bëri na ma yónnee waa parcelle. waa ma seen fay. wallaahi lii du ma seen moom damaa mbër laa soxla damaa nan ma ko jox di sant waa Yaraax yëpp fu nan ma jox damaa mbër wala Ada Fass ku ci daan naa ko damaa mbër Ada Fass ñoom naa la wala jaadu faaro ardo ku ci daan encore naa la di sant yi bu baax a baay wàll baay ba tey officiel waa Bawol ñaan réew ma Kombela Sew oui ñëpp yaa Cissé Omo Foyam am satu ñoom Raan yaraax ba ñëpp bàyyi ma ñoom Mam Faye ñoom Aïda Sène ñëpp. ñu gis tey waaye Colobane ay ñoom Baye Diouf ñëpp sa gannaaw. waaw ñoom laa am parce que ñëpp ay doomu Bawol lañ te dañoo sol ci man barke Seydina Mohamed di sant waa Bawol bu baax a baax euh, waa Thiès maa ngi leen sant waa Morola Sëñ ñoom Aliou Xare ñoom Maam Góor Aliou Jon ñoom ñëpp ama seen fay dañoo sonn si man di sant nag waa Njaan ñëpp nag dañ na Seydina Ahmed eh, xam nga laaj ndeysaan mu bu jigee parcelle dañuy topp ci ginnaawam xamante ni am na cër ci làmb am daam seet nar ta wax ndeysaan lamb gi daam seet nar ta wax de <laughs> ndeysaan bu ngi waaj a tuus kàggu est-ce que xam nga ne xale bi dina tuus tey a ah, kàggu dina tuus waaw waaw ma moo ñëwoon ginnaaw caatu Ndakaaru Papa Siteu caatu Ndakaaru xale yaa ngi lewaatoo caatu Ndakaaru mu ngi ko dóor eh xale xeex amul sax lewaatoo Papa Siteu caatu Ndakaaru eh caatu Ndakaaru xale yaa ngi xeex dañoo ñemante mbaa du jeex takk na Ndakaaru takk Ndakaaru Papa Siteu cee lambu fàq na fàq na ko mu bañ ñoo xeex mbaadoo kaawu mbaadoo kaawu war ko ndomba caatu ndakaaw war na ndomba Papa Siteu ndànk defal ndànk moo ngi koy kal moo ngi koy oh, moo am lan moo am lan ay siisam oh door na caatu ndakaaw ndaandi tey loo indi fay ndam moo mën a daan Dame Sène. Dame Sène lu koy daan si biir géew bi la. ci xeex wala ci bëri. si lépp lu mu pare pare nañ lépp. dañoo gis beneen Ndandi Fall bu bees concentration sérieux respecté bis bi bis bee toll noonu wala Dame Sène a toll. loolu lañ ma yebee maag Dame du yoonu làmb sax làmb moo tëj nii moroñ yebee ma loolu. ma gis beneen Grand Yoff mbooloo bu bees. bu jut mbooloo bu jut bu bees tax. tekk ak tey looloo ñu war. kaay mobile. sa sa sa frère. mu war a bëreeg Dame Sène nan ngeen ko yebee. waaw waaj nañ li ñu war a waaj di ñaan yàlla yàlla defal ñu ndam incha allah. ndam bi dina yomb. waaw incha allah rabi am nañ ci. bëre wala ci na jeexee fépp incha allah. jaajëf jaajëf

kàggu ndaysaan daam seen a ngi noonu <laughs> ndaysaan xale ba tuus na tuus mu sax te yàgg daan tay loo indi waaw sant yàlla rek lamb la indi xam nooy daan Ndandi Fall da ngay daan da lu ñuy wax wala xeex ban moo la ci gën am beneen grand yof bu bees bu juddu boo xamante ne ci yow lañ bëgg a wane seen bopp dina yomb kon mu sensé beneen Dame Sène bu sérieux concentré wu bis bee toll noonu wala Dame Sène moo toll noonu. moo toll noonu. Dame dafa sérieux nanguwul sax wax. kan mu doon lii lu mu doon kàggu. lamb saa yoo yu bees. lii lu mu doon kàggu. xale ngi nii boo xamante ni xale la ci làmb waaye am na cër boo xamante ni da koy jox bis moom Ardo ndaysaan golf la nekk ikiri golf gaynde bu jugee parcelle dañuy jóg unité un unité 2 unité 3 golf sud golf noor xale bi Cité fajaa dañu koy topp xale la boo xamante ne mun naa ne daanaka combat bi mooy sama combat digganta Ardo ak caatu Fora du yomb gis nga mystique yi li koy topp toppul benn mbër mu mag parce que moom jàpp na ni mbër yi fayeeku cinquante millions wala 15 millions ci dayo googu la toll gis nga ko ma ngay woote xoolal mystique yu bees yi xoolal làmb tey bis bi xale bi cër bi mu ko jox moo lay wan ne làmb saa su xëyee da lay wan boppam waaye xale yi dee leen bàyyi xel ci làmb tey nga gis combat bu neex ragal naa ne grand bi sax bu xefee komba bi moo koy dàq xaaral ñu xool Ardo nuyu naa la Ardo nuyu naa waaw siyaar sam concentration bi lan la waaw loo def daaw mu jig la da koy defar ren rek yàq wax <laughs> bi nga dugg see gis sa adversaire dugg si ban yëg-yëg nga am ak lan nga gën a gis ci moom. no man aw ma yëg-yëg ci moom li am si yëg-yëg mooy samay mbokk yi ma gunge ba ma yëg si fii wax dëgg fa yàlla ñooñu noonu waaw nañu yàlla defal ndam daal yàlla nañu. attention parce que damaa gis mbooloo bu bari topp sa ginnaaw rawatina ci cimikaay bi mu mel ni Ardo jàpp ne boppam ni mbër mi fayee ko cinquante millions yëgu leen sax ci wàllu mystique préparation ak bis bi ni mu tol no loolu nag da nga koy laaj gars yi man mystique moom xaw ma si dara en tout cas préparé naa ak sama coach ñëw naa ñi may ñaanal maa ngi leen sant di gërëm booy ñoo si sonn quoi man li si géew bi laa xam mais li si ay bideel man xaw ma si dara. boo ko doon digal loo koy wax. Fora. ba at Fora. Ah, jaru ma ngay digal bàyyi ma digal sama bopp rek. ndax taxaw ndax bopp bi defe naa baax na bàyyi ma denc rek. bu ak ban moo la ci gën. man pare naa pour lépp. pare naa lépp. pare naa lépp incha allah. xam ngeen ne seen combat ñu ci bari njort nañ ni sax mooy dàq grand combat. waaw waaw loolu la yàlla def yàlla am na lum ko may am na lum ñu may daal yàlla nañ ko si borom téel ba si kanam ak kanam kanam waaw sëñ Fallou daal. xale la boo xamante ni li ma leen doon wax sànq. mbër la boo xamante ni jàppewul boppam mbër mu ndaw ndax bis bu nekk da koy jox dayoom bis bu nekk da koy jox cërëm moom caatu foora bu jugee saar jàmm gën tali karo tabla xaadif ñëpp koy topp moom xale bi nga xamante ne tey bis bi am na cër bu mu ko jox. ndaysaan ndax kuy entraîné ndoog Siteu di entraîné ndoog abu Niasse di entraîné ndoog Mama Lamine jël bis bi jox ko cër bi xoolal mystique yi li ma la waxoon nee naa la combat bi ku yéex mooy dàq sax grand combat bi bis bi fi mu toll la ñaani xale yu boole moo tax. Thiatou Fora nuyu naa. fay naa la. loo indi tey. ñaan yàlla may ndam rek. ci lan ci bëre wala ci xeex. ci lépp. Ardo nee naa ñeme woo taxaw samp jaaga jàkkaarloo. waaw yàlla baax na yàggatul léegi si géew bi la. mais gis nañu concentration bu bu bu mat bu am solo bi nga xamante ne jox nga ko bis bi bis bee noonu wala Ardo moo toll noonu. waaw man maa toll noonu du Ardo de ndax man waruma asaaloo xoolal lii yëpp maa koy tey moo ma war. Ndeysaan ngeen ko moom Ndeysaan Thiatou Fora xale boo xamante ne bàyyi leen ko xel kol ko muy def. tin waaw ah, bëgg naa la bàyyi naa la waaw ah, sant naa la kon dama laa gëj a gis waaw maa ngi liggéey samay bagage rek ah. sa combat lu la jàngal sa diggante yow ak dab daan waaw sama diggante ma ak dab daan non da ñëw rek bàyyi jili amale lu may wax defe da ñëw rek ma war a daan daanu di ñaan yàlla ndam la jikko man maanaam man xale bu ndaw laa quoi dafa ko ma dara ci làmb si amay ñëw teel a bëre grand combat lii dara ci xëy na keroog yàllaa ma tuddoon ma war a daanoo mais groupe dab daan maa ko mën. bàyyi mais ban erreur nga def ba dab daan daan la. waaw mooy erreur mooy erreur mooy a jox cër bi rek ñàkk a jox cër bi waaw waaw euh, loolu kese moo ma daan. loolu la dab daan doon wax ci signature mooy dama laa xam te xamoo ma kon nangu nga ni dëgg la. non maanaam joxuma ko cër quoi man jàpp naa ne kii xam nga ne ko sama naw la ci làmb loolu ma rey quoi baa jiili bi laa di ko ñaanal rek ndam la jikko instant li si kama karam laay xool quoi. wax say supporter. waaw sama supporter waaw instant eh, benn yoon. waaw démb rek la ñu ñëw xam nga diri ñëw dëgg yàlla ñu ngi siy jàpp quoi mais ba jëlee lam mi ngi si kanam yàlla baax na quoi. dundu. doom yaay waaw amoo combat amaguma combat. mooy maa ngi xaar rek. yow yaay ma ma waaw. Abibi Sëfëna Caatu Xaar Yàlla Armé 2 eh Caatu Xaar Yàlla moo ñëwoon ginnaaw ngémbo ngémbo lu weex li Armé 2 mbokk yi moo jàkkaarloo ñun tent bopp bi Armé 2 ngi mépp Caatu Xaar Yàlla saw Armé 2 mébé mu mu reculé Armé 2 ngi noonu yi xale ci kawam caatu xaar yàlla replier wàcc na ba tolloog moom ndax boo xoolee mbokk yi ci taxawaay ci di caatu xaar yàlla moo xaw a su tuuti eh, seen dajaloo boobu ñaari xale yaa ngoog caatu xaar yàlla mbëgg na léegi sànni waa dalu waaye am na bi ma gis dafa bëgg a dem xeex bi mi wax du dëgg ci moom am na caatu xaar yàlla cokkaas na léegi waaye dóor yi Ahmed de ku yi ngay sànni baaxul. Caatu xaar yàlla wàcc na ba toll ak moom. waaye kii mbokk yi du caat. doon na gauche droite léegi. Ahmed de moytu ma yooyu ku. bu la dalee du ma neex. làmb jaa ngi noonu. ñoo ngi xeex dama ko oh Ahmed de dama jël ko. neewoon naa la xeex bi muy def du dëgg ci moom. ne woon naa leen li xeex du dëgg ci moom da ko dóor caatu xaa yàlla daw du ko jël mu pakate ko pakate ko daan ko. nuyu naa la tey nga woote fii ci stade arène national boole ñaari xale muy Ndandi Fall ak Dame Sène ban satisfaction nga am tey ci làmb ji. waaw xanaa kontaan rek ndax man yàlla xam na ne maa ngi soog a door ma am lii tey dama koy sante yàlla ndax lii gërëmu yàlla rek moo ko mën a may nit. lii jub rek moo ko mën a may nit nii boo amee ñaan da doo ñàkk dara man dama gëm ne man damay dem dama gëm ne man bu ma taxawee rek senegal jàppale ma ndax man li senegal yëpp laa ko may ndax lamba ji mu nekk première fois ma soog a dugg ci euh, promoteur ma am lii tey dama ci sant yàlla bu baax sant ñi ma ci àndal comme li suñu papa ji nga xam ne mooy moo li nga xamante ne mooy drapeau bi Abdou Ndiaye mu nekk euh, agence immobilier wax dëgg si yàlla musuma ko gis mais dama ko dégg rek ma tuddee ko drapeau yàlla xam na ne wutuma ci alal waaw. sa doom ji daanu na mais li muy daanu daanu may nañ ko parcelle ngir sa jëmm yow moo tax ñu may ko parcelle bi malgré nag buñ sañoon mu daan mais comme daanu na teewul la ñu xalaatoon dinañ ko def mooy may ko parcelle tegal yow nag ñu jërëjëf waa di la gërëm di la sant di gërëm sama promoteur Abdou Ndiaye di ko ñaanal yàlla. lépp lu mu def ren yal na ko mën déwén ay déwén déwén ndax cër bi ko yàlla jox mu jël ko delloo ma man mii ne ma ñëw yow yaay présider affaire bi yëgati këru terrain bi jox ma ko ne ma joxal ma ko euh, le liitóor euh, caatu caatu xaar yàlla kon tey ñun mënuñu lu dul gërëm ko waxoon naa ko sànq si que nee naa ko nit ak bëgg a bëggam mais yàlla ak dogalam tey nag lii nag yàlla loola dogal nañu ko ñaanal yàlla déwén si jàmm li mu man ren yàlla na ko man déwén te yéen ñi nga xam ne yéen a assisté yéen li ngeen bëgg yal na ko yàlla suñu borom bi defal kontaan nañu si yéen bu baax kontaan yal na leen yàlla jàppale kër gi nii moo ko moom mbër mee ko moom terrain la boo xam ne bii bu ñëwee ñu identifié ko jox ko ko day day la koy jox yow yaa ko koy jox caatu moo ko moom waaw terrain la waaw bindal gis terrain bi mu ko may la. waaw. boo ñëwee rek jërëjëf. daal li nu lay wax ñun l' ensemble des communicateurs ak ci làmb ji mu ngi lay wax jërëjëf ndax abi mii bi muy sonn ci lamb di wutal làmb ay sponsor di signé ak promoteur yi ay millions boobu demoon nañu ba ñàkk yaakaar ci làmb kon bu retourné tey soluwaat ne damay jël la ma daan am mu néew mu bëri dajale ko delloowaat ko ci làmb su ne bëgg na làmb dinañ ko gëm mu jagleel la bés ci daanaka diir bu gàtt nga bàyyi loo jàppoon ànd koo am soo wuysee Habib boo boo ca deful dara wallaahi yëg nga ko yëg nga moon làmb travers ma voix man maay buur géwél de reporters de lutte en ligne président des jeunes reporters de lutte Habib lii nga ko defal làmb nga ko defal te boo ko defalee làmb toute la presse en ligne nga ko defal moom daal jàppal ni jàpp nañ ko te jàpp na la. sigi tey jàpp naa ko parce que ñii samay doom lañu te ñoom laa am kon lépp luñu ñu rek soo ba jëm soo rek man ngi ci loolu kon may dëggal sa wax jooju moom c'est la première fois ñu gisee waaye gëm naa ne bu lii passé danañ toog man ak ci lu bëri liggéey ci lu bëri. ku ko rek ku jàppale rek wallaahi Azim jàpp nañu jërëjëf monsieur Ndiaye kontaan nañ ci yow. mbokk yi combat spécial baa ngi noonu moo ngi dox ci diggante Thiatou ak ki nga xamante ne nii mooy Ardo Thiatou Fora a ngi noonu ñoom topp ci gànnaawam bi am lu muy am na sunguf bu caatu Fora yor ngi noonu xale yaa ngi noonu cey làmb Ardo caatu Fora ñaar xale dañoo ñëwe yande xool leen am na lu ñuy wax caatu Fora Ardo du ko dàq man combat bi mooy sama combat combat bii mooy sama combat am na lu ñuy sotti ki nga xamante ni mooy Ardo gis leen kooku moo ngi noonu yow ma di siw tey làmb Thiatou Ardo Ardo ngi noonu yëkkati na picc moo nga kees ga. baa ji tey noo gisee làmb ji. Ousseyn daanaka mun naa ne komba bi mooy sama combat. xanaa mooy combat ñëpp. ndax Ardo dafa nekk xale boo xamante ne daa mën a bëre. surtout dafa am jom. surtout dafa jox bis bi gëdd gi mu laaj. ba pare waane te man loolu dama ko bëgg ci mbër. caatu fooraa mi muy bëreel. moom jàpp na ne quatre-vingts millions lay fayeku ci làmb. ndax bu amee bis. ni Siteu di ngemboo di ñëw Mama Lamine di ko ngemboo di ñëw ñeneen mbëru lansaar yi di ko ngemboo di ñëw moom noonu lay ngemboo nga xam ni ñoom ñaar fi mu toll ni combat bi ku ci daan sa prochain combat mën gaa bëre grand combat muy caatu Fora muy caat muy Ardo waaye gis nga ci digg géew bi ci mikaay yi bari na trop muy waral ni ñoom ñaari mbëri ku ci nekk li nga xamante ne mooy mystique favoriser nañ ko ñoom ñaar mais est-ce que mystique bi mën naa jeexal làmb ji. bien sûr parce que mystique Ouzin li njëkk ci xel la sa adversaire boo ko wanee bis bi respecté naa ko rek mu jox la cër ndax ardo fi mu tol nii mystique bi caatu fooraa indi day tax mu jox ko cër caatu foora mystique bi ardo indi day tax moom it mu jox ko cër kon làmb ji joxante cër bi mystique bi da ciy bokk waaye boo simee ko am état de forme yokk mystique sa adversaire cër bu mu la joxoon dina la ko gën a joxaat mais dinaa ci yokk lenn mooy ñaari xale yi bu ñu bëree te door bu daanu amu ci weccitu bëree dina fi feeñ. non ñoom ñaar ay bërekat lañ gëw ma ni combat bi dóor mu daanu mën na cee am waaye xam naa ne dinañ xeex waaye dañuy bëre de dinañ bëre ba naaw ci kaw tribune bi. caat ñoom ñaar. wecc bi dina wadd waaye bu ma ci foree jël. waaw waaw la ko wax Ousseyn du yomb ñoom ñaar. gis ngeen xale yaa ngi noonu. dégg ngeen ni ko baa ji li waaye ki nga xamante ni ni mooy caat Fora sangoor yi daa bëri sangoor yi daa bëri xale yaa ngi noonu xale yaa ngi noonu Ardo ngi noonu ak Thiat Fora Ardo am na lu ngi noonu di xool sangoor di xool bala ci war jël wala Ardo ñooy noonu. dégg nga. yi léegi <laughs> mu ngi ñàkk ci làmb. saa nañ ko suuga mu woyaan mu a bés ay jili baal li nga mel borom wasaare. xoolal xoolal xoolal xoolal lañ koy sotti. xoolal Ardo lañ koy sottee ndoo butéel ya. butéel yi daa bu ngeen ko deful nii du gaaw a jeex. ci làmb. maa noonu ci digg géew bi bàyyi jili. ndeysaan. di nga gis combat bu neex. ndeysaan li ku magaaw la naan dina neex dina yëngu waaye fii tey dina neex dina yëngu bàyyi ji li ndeysaan mu nekk combat boo xamante ni mbokk yi bi mu ngi wax ak ñoom ñaar li règlement bi nangu ak li mu bañ ardo moo leen woon ginnaaw caatu foora moom ngeen jàkkaar lool moo xees ardo moo ñuul arbitre bi sifflé na Ousseyn bàyyi xale yaa ngi lewaatoo ardo teg ne pied gauche caatu foora teg pied droit waaye Thiatou Fora mi ma gis Baye Djily mel ni dafa bëgg a dem. Ndeysaan ñoom ñaar a ngi noonu di leetoo Ousseyn. Ndeysaan boo xoolee Ardo. garde normal la def. jiital tànk càmmoñ. xeex bi bu ko bëggee arrangé. day jokkaas goos indi droite. Ndeysaan ndax tànk bi nga xamante ni moom la ko Thiatou Fora tegal. Thiatou Fora nag pied la teg. loxo droite bi lay njëkk a jokkaas pour indi goos bi. Ndeysaan li père Birahim Ndiaye doon wax. tànk droite foo ko tegalal lamb ndaysaan mun na laa ñàkk a arrangé ardo kon pied droite bi ko caatu foora tegal mun na koo ñàkk a arrangé Ousseyn baa ji li ñooy noonu boo xoolee ñoom ñaar dañ doon jëflante sànq ku ci nekk fi mu toll da ngaa téye sa bopp di xool lu sa andi waaye defe naa ni ku ci njëkk a déclenché lamb ja lamb ja tàq ndax lii la may wax chaque jour rek bu dóomu daan amul bilaay nga gis bëre bu neex tey concentration bi ñoom ñaar lii ñu njëkkee mbokk yi duñu ko mujjee ardo gis nga Thiatou Fora ñëw na dañuy xeex waaye ci bëre lay jeexee ndax ñoom ñaar ñëpp ay mbëru bëre lañ taal nañ ndeysaan ardo cokkaas na daa bëgg a ñëw sàmm leen seeni tànk ardo picca nga ca waaye xel maa nga ca suuf ndeysaan Thiatou Fora sa tànk a la jëm Thiatou Fora moytul droitu ardo bi ndax nim loxo fermé bu la ko dóoree rek mbégteel mun naa am la ma la waxoon na ko gis nga <laughs> du yomb. arda da koo xool. arda da xool waaye baa ji li caatu Fora ni muy bëree. arda naan na bu yàgg. na fex ba buy jëli na jëli ba assuré. Ibrahima kii ko arda dóor léegi. bu ñaare ay mbokkam fori ko de. ñoom ñaare ngi noonu. arda caatu Fora. arda mbokk yi moo ñëwoon ginnaaw. caatu Fora lañ jàkkaar lool moo xaw a xees tuuti Ada cokkaas na léegi waaye demul kuu bi dalagul ah caat fois daw na jël Ada kor na ko ñoo ngi xeex ñoo ngi xeex loxo ba simeeku na oh loxo ba simeeku na loxo ba simeeku na loolu moom sikk la ci moom loxo ba simeeku na loolu moom sikk la ci moom Ada caat fois saa yu bëre loxo ba day simeeku dañoo xeex sikk la ci moom. kuubam dóor baaxul moo ngi koy delloo. moom Ardo delloo na ko. Ardo delloo na ko. cat la ci moom. Oh. saa yuy bëre loxo bi si meeku. mbokk yi abib sifle na. ci diggante Ardo Thiatou Fora. bëre nañu léegi ba mi Ardo mbokk yi am na trois avertissement. Thiatou Fora Ardo ñoo ngay xeex Ardo Thiatou Fora. Ardo da koo bëgg a fi mu toll nii. ndax li mu bëgg mooy Thiatou Fora wuyu si ko ci lim koy woo. mu daw jàpp ko. ndax Ardo fi mu toll nii bërëb bi moo ko gënal. ndax fi mu toll nii loxo yi mënatul xeex. gis nga baare rek la mën. mënatul xeex moom Ardo. ñoo nga ca ñoom ñaar pël. Ardo. door na ko door na ko Thiatou Fora Ardo. Eh, xale yi. dañuy jàpp def dóor ma dóor xeex bi xeex bi temps pël xeex bi temps la ñoom ñaare ngi xeex ba tey fi mu toll nii. Ardo Thiatou Fora ñoom ñaare xale yi actuellement fi mu toll nii ku ci nekk mu ngi joxe li nga ñoom ñaar ku ci nekk ma ngay joxe waaye combat bi buy jeex ragal naa tànk koy jeexal. waaw waaw daw jëli sa tànk morom mu mbot la wala nga daw jëli sa tànk morom dëj ko mu daanu. lu nekk ngi ci biir. waaye nag boo xoolee ñoom ñaar bàyyi ji li doole yi dañoo xaw a tolloo. mënoon làmb ji xaw a yàgg. ndeysaan dañoo tolloo doole. doole yi dañoo tolloo gabarit yi dañoo tollo taay bi dañoo tolloo. combat bi day uteeg yeneen combat yi ñuy tëgg ñaar noo kan moo tëgg lii. Mhm. parce que ñaari xale yi tolloo wu ñu diw moo ëpp doole. combat bi ñoom ñaar ken ëppul doole sa morom. Ardo jaar foo. mais xool nañ ñoom ñaari mbëri Ousseyn. combat bi amateur dañ koo bëgg. mais caatu fois ni muy bëree bëgg naa ko. bu jàppee sa loxo da sama xel dem na ci Doudou Sané. kon na jëli ko. Feugeul Ardo ni mu duggee baaxul. Ardo ni mu duggee baaxul. damay arrière Ardo jàpp na caatu fora. wala caatu fora jàpp na. ña ngay dina jeex. ragal naa mu jeex. fàq na ko moom Ardo mu bañ. ndeysaan Ardo caatu fora. ndeysaan ñu ngi ci combat bi ba tey gis naa Abou Diassé ci ci meekaay caatu fora waaye lekkatut naanatut fi mu toll ni mu ngay toog di taxaw ndeysaan kot su baa nga noonu kot su ardo bi moom sam ndeysaan moom it taxawatul toogatul te moo toog ci siège bi làmb nii la ñaari ndamay dugg waaye benn ay génn waaye xale yi duñ caaxaane bés bi tey ndeysaan déedéet ardo lu mu def taxabal na ko ndeysaan taxabal na waaye demul déedéet demul ñoom ñaari xale yi ñu ngi noonu Ardo ak Caatu Fora combat bi maa dina gaaw supporter Ardo yaa ngay tàcc ña ngay tàcc ndaysaan day ko xabal na ko oh. bu bañ ndaysaan kal na ko bon na ko daan Ardo daan na Caatu Fora Ardo kër si ba jëlal sama xel dem na ci caméra. waaw président wala entraîneur yi. xoolal ma xoolal la ak Leonardo Kago. ndeysaan xool ko. xool ko. ndeysaan xool ko. xool ko. takk der yi puus leen. ndeysaan xale bi. takk der yi puus leen takk der yi dañ lay bàyyi ba ko pare ñu jàpp la. ndeysaan dañ lay bàyyi ba ko pare ñu jàpp la. xoolal la muy def Kago jëlal ma ko. xoolal la muy def. jëlal ma la muy def. xoolal Ardo la muy def. ndeysaan. <laughs> bii daal manière bi xaw ma ban façon manière. moom ak Kankura la. daan ba daanu. na ay coup vraiment. dëgg la pël. nag mooy metti dama si yàlla fajoon nañ ko sax ba mu wér mais dañ si gaañuwaat dañ si gaañuwaat waaw mais mooy lool taw féex rek yàlla nañ ko yàlla saafara waaw loolu la demee. waaw caatu fora dama gis ni maa prolonge mën naa ko jam mu ñëw parce que moom dóor bu mettee rek faaw nga ref def dara wut solution bi muy wut si laa ko bëggoon na daan ko te après noonu la mujjee quoi ah lamb lamb rek iso booy beeg taaw laa doon woo dafa mel ni caat moo mujjee teew man la taaw yaayam baayam ak ama ay si caat du réew jàppee ma Mikaël ndax jàmm gën attanul sama première taw tegal ma kaamil ma waat ne a ta taalibe Bamba dama lay caw du man ak yow nigga maag yow comme yàlla ak yàlli du ma la yow nigga man damay jaar rek jàll attaqué koñe gañee xam nga bëre daan dem ñibbi xale yi ñoo jugee golf xale yi ñoo jugee si dafa jaa xale yi ñoo ànd xeex na xeex bi daan na daan bi ndaysaan xarit xarit yaa ngi noonu njaga ñaale yaa ngi noonu ndaysaan ñi ñoo ànd ak ardo lamba gi nii ndaysaan xale ba daan na ardo daan na ndaysaan kàggu lamba gi kàggu kaay kàggu Assane nuyu naa maa ngi lay ziar ah boobaag léegi ñu gis sa bés da daan rëy mais boobaag léegi gisaguñ la lan moo tax gisaguñ la Assane. non maa ngi ñëw dimas le 13 juin soo ñëwee le 13 juin ñu xam ne ñëw naa. le 13 juin ci diggante kan ak kan. diggante Boy général booy Pouy ak euh, Balla Gaye Junior. maa ngi tegan général Malika fils de Balla. mais man dama am habitude du tëgg cinq grands combats bu yàqu ma jël bi ci des comme Balla fils de Balla ya gaañu na damay aj combat yi cinq grands combats bala Balla Gaye junior Mor Pouy doy na Badou Fall Zoro su doy na Caatu Montagne Moussa Guy gi doy na Thiaw Essar Boy Malaw doy na waxuma na nag yu ndaw yi mais ñu gis combat boobu nekkoon combat boo xamante ni nit ñi dañ ko bëggoon doon ko ñu dem ba moment bii nii kii ki nga xamante ni mooy Fils de Balla blessé naka ngay def ak combat woon ndax combat bu ñu xoolee depuis daaw la woon naka ngay def ak combat boobu da ngay da ngay xaarloo général Malika wala da nga koy wutalaat adversaire bu dul euh, Fils de Balla. naa ko adversaire mais amuma dem naa ba génne ay millions pour dix jour mais amuma du sam bopp nag yaa ngi dégg mais damay làmb moo loolu moo am na ci biir euh, euh, taxi yi am na ci biir làmb ji règlement yi am na ci cas de force la. am na ko gaañu dañuy xaar ba wér ñu ñu tëgg combat loolu du fi gan quoi. kon fi mu toll daal su ma juumul. général ma ne que day xaar ba fii sa Balla tane ñu xool lu ngeen def. incha allah noonu lay def. kon baax na maa ngi lay jaajëfal baax. jaajëf. miir la. tontu yéen mooy teel tontu yi. loolu yëpp dëgg la. mais dama ne ne. ñu ne ñu yor bi day fay yëpp yi. kii demoo ma de. bu doon voilà bu doon bu doon tontu. yow am nga combat. yow am nga combat. eh ba le huit. Nokia Sandiara Moussa. fenn xaaral kii man ak ba le huit incha allahu rabi. i ma maa rëdd yu bëri xaw ma arène nationale. dégg man Sandiara moo may chargé barke alxuraan ni ko bi chargeur bu sooy fu mu amati. man chargé chargé wu ko de. jant moo may chargé. mu ne ko mu naqari ko damay xeex ak moom. yoo xam ne chargé wu ko de man jant sa jant bi moo may chargé. waaye douze max pro moo am douze max pro moo am. Nokia yow boo yow eh. déggoo li ma la mu jeex u wax li gàtt. bay att attanu riiru soow mi Moussa ñetti gàllankoor ma attanu riiru soow mi attanu riiru soow mi ma nga may de xale may dëkk may ma nga may daal yéen ñaar yéen ñaar kan moo ëpp dool suuf maa kii kii du maa moom. waaye du maa moom boo ko man junni yor barki Serigne Touba. BM laa soxla BM du ñu fa mais. dama jël loolu yàlla wax barki Serigne Touba. na ñëw ñu bëre na ñëw.

abi bi sifle na Bada Yandé doomu Saafeen ñu fas yéene waxtu waxati comme nañ ko daan defee Bada Yandé ak doomu Saafeen Ousseynou Diop baa xale yaa ngoog jëlal doomu Saafeen mu ngay fuddu kii mystique jàpp ko déedéet Bada Yandé koy moo ngi koy kàbbar combat spécial baa ngi neenu dox ci diggante Bada Yandé ak doomu Saafeen doomu de moom mooy séeréeru Saafeen billaay waxati ko waaye ñi seen lewaatoo bi dafa sooyanto waaw waaw jegeyanto nañu am naa ci yaakaar ne nii ñu débuté bés buñ ko continuer nga gis combat bu gaaw du ñu fi guddeel benn yoon Bada Yanda doomu Saafeen xale yaa noonu ci diggi géew wi mbokk yi Habib Lecran moo ñu fi woo doomu Saafeen Bada Yande ñoo ngi demee wet saako dëkk la waaye saako yi fekkiwul kenn xale yaa ngi lewaatoo mu ngi andiwaat ci digg géew bi waaw waaw ñoom ñaare ngi noonu ba day ànd ak doomu saafeen waaw doomu moo ñuul moo la wan ginnaaw séeréer la kenn du ko laajte pël day xees <laughs> doomu saafeen moo ñu wan ginnaaw nañ ko pël. saako yi fekkiwul kenn. ñaata yoon doomu saafeen ñoo ngi waatoo. oh ko léegi doo daal. mais bi weex na de. supporters yi yuuxu doomu saafeen ñoo ngi ndeysaan ba tey ànd doomu saafeen mbokk yi bi mooy combat spécial bi ndeysaan su ko defee ñu ñëw ci grand combat bi door na ko door na ko léegi xale yaa ngi xeex déet waay doomu saafeen looy def nii jël na ko jël na tànk ba jël na tànk ba déet déet déet yi daanu ko war na ko daan ko daan na ko doomu saafeen daan na ko doomu saafeen daan na ko nee na man la ndeysaan gàccey jóor ndamal daan fañ na ko Darmax Darmax sama combat at Dame Sène ñàkk caaxaan yaa ma li ma def waxoon naa leen gars yi def li ma def Dame Sène lu ko a bëree mais Père Max man xam nga lan laa bëgg waaw waaw ma Barayane Barayane xoolal billaay walaay tawaay sama booy sama booy ñooy per man maa bool dañ maa seetaan quoi waa bool dañ waa bool dañ maa seetaan per kii ma taxawal combat bokk na ci combat bi ma njëkk a reporté ci wasaare lamb BMW ak petit baabooy nga daan ko ba ne ay siège ak i baas ku ne mën na koo luwee waaye ay nit kenn mënu leen ndeysaan boobu ba léegi foo ne maa ngi sama rox rek nekk sama papa ginnaaw sama ginnaaw papa ba dajoon lu ma wax lu ma wax ma def ko lu ma tere ma bàyyi ko maa ngi nekk fi ma nekk saa ma nekkee kaay fii jël avance du ma ko laaj sax kan laay bëreet ku ma ne kii ngay bëreet kooku laay bëreet waaye ginnaaw maa ngi nuyu sama booy yëpp di nuyu sama gaay yi carrière ak xam nga di nuyu sama papa ak sama yaay ñaanal sama booy dañoo am combat maama Lamine ak fils de BM ak petit BM ak BM2 ñoom ñëpp dañu am combat ma leen di ñaanal ñu am ndam man nag maa ngi samay entraînement. ba léegi proposé la man Barajan la ñuy wax man dañu wax ak man man amul benn promoteur wala menacer bu wax ak man lu ma sama papa Barajan wax loolu laay def du wax daa nekk Ili Souga Wilaas man amul solo luñ ne waaw rek man pare naa. gën ngaa bëre nag. non corona bi kañ ñëpp a nga jë bëre. waaw ñëpp yow bokkoon nga ci xale yi war a njëkk a am combat bëre ndax saison bële ñi ko njëkk a bëre ko nga sëñ Modou bëggoon na ko mais da koo dem bi mu ko bëggee ma ak demoon na bay wax ba ñu jëboo yaa ngi dégg ci la corona bi dikkee ñu combat bi mu avancé wu ñu ne waxaat Ziza Ziza ne bëreetul man nag maa sama ginaa bopp ba dajoon mu wax rek loolu laay def. saa yi kan nga bëgg. non duñ ma joxe Alioune Seye Senior ma bëreeg moom. duñ ma Seye Senior mel. bu yëmbal duñ ma ko joxee ma bëreeg moom duñ ma joxee dab daan ma bëreeg moom. dab daan mi daan mbaytin. waaw. mbaytin nag. non mbaytin na xaar. waaw dab daan Alioune Seye dab daan ak Alioune Seye si ñor daal ku ñu ma jox ma bëre ak moom idaale ñu ngi lay dégg idaale ngi may dégg sëñ Modou may dégg ok jili xale yi ñoo jugee Grand Médine xale yi ñoo foofu ci tund boobu ànd ak ndeysaan daal di faal xale yaa ngi noonu ndeysaan ña nga noonu dégg la ñu wax ngal ngal ay waay kaay ñëwal yëngal ngel aywa ndaa di dafa yëngal sax aywa waaw waaw ayca yëngal ngel waaw waaw ndaa di dafa yëngal sax ay yëngal ngel waaw waaw ndaa di dafa yëngal sax yëngal ngel waa ndaa di faale gi noonu ndaa di dafa yëngal gaan dem ci adversaire am waaw waaw daam seen daam seen daam seen ay sa dégal booy daam seen daam seen daam seen ndeysaan xale yaa ngi noonu ñii ñoo jóge parcelle ñii ñoo jóge unité 3 ñii ñoo jóge unité 4 ñii ñoo jóge unité 7 ñii ñoo jóge unité 10 aw booy xale nga ne ayca leen di bi waaw waaw. li dëkk dafa xaaw waaw waaw. ndeysaan waaw. li ngeen dëkk dafa xaaw a sori. aw nañ. xale yaa am jaabi. moom dootul jël. débat bi bëri na daam seen ak Ndandi Fall ñu ngi ci digg géew bi actuellement xoolal xànc bi ñu teg daam seen jéggi na ko da koy takk ci ndigli maa la ko wax làmb la. ngay ma dingoom nañ ko nee na ko wàccee ma ndeysaan Dame Sène a ngi bi Ndandi Fall ngi ci seen débat déeb ndaysaan Dame Sène yor na inde yor na gën lu ñu fas yéene def dañuy toog ceeb ah xanaa faw ñu booloo ñoom ñaar kii yor gën kii yor inde bu ngeen bëggee mu neex boole li ngeen yor bëre kàggu jaaykatu café baa ngi noonu laajal kaas ndeysaan ey làmb wala kii ànd ak naan di fa leket la yor ndeysaan naan di faal ki ànd ak moom leket la yor ndeysaan ñu ngi noonu di wër ñoom ñaar Nandi Fall day wàqi ba mu xóot mu am lu mu suul waa ji joxaat na ko dafa mel ni ay bekk suukar la yor wala déet en tout cas daal ma ngay wàq wàq na ba mu xóot suulaat na moom Nandi Fall lamba ngoog lépp tegtal la Nandy Fall ngemb lu bula la def ci lu bana sengoor ba Dame Sène yor na ay sengoor yu xonq ma ngay wër ak moom géew gi ndeysaan ñoom ñaar du yomb de Dame Sène takk ko ci biir ngemb li ndeysaan gis nga ko ma nga noonu di ko teg ci kaw ndeysaan mi bu bëri na Nandy Fall dëppoo leket bi ma ngay wër géew gi Nandy ngay wër lamb lépp tegtal la ma ngay ñëw na ci man romb na ma ndeysaan ma ngay dem daa bëgg wër daan da koo bëgg a wër bañ na ndaysaan bañ na bañ na ndaysaan mbokk yi ñaari mbër yaa ngi noonu ci digg géew bi bii mooy grand combat bi dox ci diggante Ndandi Fall xale bi nga xamante ne moo jugee Grand Yoff nekk écurie Grand Yoff mbooloo di bërëg bërëg parcelle gi ñu koy wax Dame Sène ñoom ñaar combat boo xamante ne ñoom ñaar ñoo tolloo mbokk yi tolloo nañ taay tolloo nañ poids tolloo nañ dayo mbokk yi ñu ngi fii ci arène nationale ki ñu fi woo ki ñu fi woo di ki nga xamante ni mooy Habib Lecran arbitre bi sifflé na Ndandi Fall ma ngay arrière Dame Sène mbokk yi samedi 5 juin 2021 fii ci arène nationale il est 19 heures 59 minutes Ndandi Fall ndeysaan dox ci digganteem Dame Sène Ousseyn Diop. bàyyi ji li combat bi ma gis nekkul combat bu yàgg ndax kii di Ndandi saa bu ay sifle day samp tànkam xool loo andi boo tàqee mu tàq boo tàq mu tàq combat bi bàyyi ji du gaaw du du du yéex. ndeysaan ñu ngi noonu ñoom ñaar Ndandi Fall jiital tànk ndi joor Dame Sène jiital tànk ndi joor ñoom ñaar bu ñu dëggoo ci xeex bi xeex bi dina neex waaye picc nga ca kaw waaye xel maa nga ca suuf. bàyyi ji a picc nga ca kaw waaye xel maa nga ci suuf mais loo ci mën a gis daal mooy Dame Sène na sàmm ay tànkam ndax kii di Ndandi Fall gaa yéex yéex yéex yéex ñëw gaaw gaaw gaaw day ñëw. buy cokkaas na sàmm ay tànkam bu mu fàtte ne daam seen ndaanaan la waaye ndaan di faal ndaanaan la ku nekk daje naag moom fan yi nag na ci ay tolof-tolof waaye état bi ma gis daa mel ni jalaat na boppam bàyyi ji nii. ndeysaan mbokk yi ñu ngi noonu di leewtoo ñoom ñaar daam seen daan di faal ñu ngi leewaatoo ba tey dara amagul ñoom ñaar ñu ngi xoolante ci bët ndaan di faal moo leen féetee ndi joor mbokk yi daam seen moo leen féetee càmmoñ daam jàkkaas na la du soq Coly Faye de jëli na ko ndeysaan na ko jàppante nañ jël na ko jël na ko daw ko pakete pakete na ko am seen bañ na waxoon na ganti na ko supporter yi yuuxoo nañ naa la kon Ndandi Fall mi la la ñëwee tey moom Ndandi Fall saan ñu ngi noonu Ndandi Fall daam a ngi dóor ay uppercut ci suuf waaye na sam ay tànkam ay tànkam loolu ndànk ndaan di ñooy bëreel ndaan la ndaan di faal daam ñoo ngi ko si sew ci suuf ay dóorante dinañ xeex ndaan di faal bëggul loolu day cokkaas ak waaye loolu du dëgg ci moom bàyyi ñu ngi noonu ndaan di faal ndeysaan ak daam ñu ngi ci combat bi ba tey ñoom ñaar jàppante nañ ku ne déglu sa morom jotu ñoo xeex arbitre def na prip ñoom ñaar ku ci nekk liir sa morom jékki-jékki daam seen daw song ñu jàppante waaye hypercule ngi jolli ci suuf a suuf a suuf Ousseyn. yaa ngi jolli ci suuf a suuf ci nekk code bi la bëgg a tijji gis nga ku ci nekk fàq. fàqan na ko. fàq na ko moom Dame Sène daan di faal bañ. fàqan na ko mu bañ. dañoo xaw a tolloo doole ñoom ñaar cee caméraman bi. ndeysaan. Dame Sène daan di faal. ànd ceeg kàggu la grand cadreur. ñu ci nuyu waa Wassare gépp. ndeysaan Zeus borom Brésil sama xarit bi. Seri Fatou mënu ma laa fàtte boo duggee Brésil dama fay dugg nuy xaarim kuy kooku xaw ma ko xaarim borom Brésil léegi noonu saan ñooñu xaw ma leen boom kol ak ñàkkaan Brésil ges rek a fa dëkk xaarim sa waaye bu ko sewal xaalime Cheikh Ahmadou Bamba xaarim Rasul boobu moom la wax def ko gis ngeen làmb jaa ngi noonu Seri Fatou ges ci diggante Dame Sène ndeysaan xale yaa ngi noonu di bëre ndand fan mbokk yi moo ñu woon ginnaaw ngeen woon ngeen lu bëre lii waaye daam seen na jàkkaar lool ñooñu noonu jàppante ku nekk ndengeej di rokka si sew ci suuf man ay kot laa ko kot su bi toogatul daa mujjee wàcc ci suuf. lamba metti baa jili. loolu moom kenn xamut lu mu doon. da ngay waaj ay weer ba bés ba ñëw pression ba ngay àndal boo xooloo ñu ci kaw tribune ba sax sax da da gën a triste baa ji waaye xale yaa ngi ci digg géew bi ñoom ñaar daam seen daan di faal. ndeysaan noonu. daam seen daan di faal mbokk yi. ñu ngi ndengeñante ku ne di déglu sa morom. ñu ngi dóor ay coups yu ndaw ci suuf ay uppercut. amit baa ngi wax ñoom ñaar. yu jolli yu saf. suñ toll lu nekk mën na fi am jàppante. puusante épreuve de force. xale yi daal ngi noonu mbokk yi. ndeysaan Wassare Lamb. daam seen daan di faal. ndeysaan ñoom ñaari ngi noonu arbitre bi day atte. kaay bëre. kaay leen bëre yéen ñaar. ndeysaan. ndeysaan. ndeysaan. Père Ibrahima Mbaye. ndeysaan père Ibra loo wax. Martin nii. waaw ancien lutteur doon entraîneur doon ménager. xool ko ni mu waafee. soo du bis bee ko dépassé. mais mu waru ko dépassé ki bëri na ba bàyyi bëre. li waru ko dépassé ay xale ñooy fa rek. ndeysaan xeex nañ. daw nañ jël ko jàppante. ndeysaan jël nañ jàppante. jàppante nañ ñoom ñaar. waa ji ni daam seen na sàmm tànkam yi. ndeysaan waaw waaw Ousseyn. daam seen na sàmm tànkam yi boo bëree daam da ngay wàcc ba tolloo. Dame Sène bëgg na ko tànk daan na ko Dame Sène daan na. Dame Sène ndaje dina beneen paquet. Sène daan na daan di faal. Dame Sène da koo takk biij ko doo ko takk wëndeeloo ak moom. ndeysaan Dame Sène. Dame Sène daan na daan di faal. Sène daan na. ci biir bëre la ko daanee. oh laab ma gi noonu. parce que nañ ko jooy kàggu jëloon lii. kàggu jëloon lii. xale yi ñoo ànd ak Dame Sène xale yaa ngi noonu Dame Sène am na ndam lu rëy ndeysaan Dame Sène faal lu am tur ci mu bàyyi loolu faal non bàyyi na ak mbaar bàyyi na ak mbaar ci moom kaay kàggu ñëwal maa ngi jégalu bër bër champion Dame Sène Dame Sène Dame tuuti ci ni nga bëree ni bëree tuuti ñëwal tuuti defal ndànk rek ñëwal tuuti ci ni nga jërëjëf mbokk yi seetaan wasaare lamb lii loolu moo xewoon tey fii ci arène nationale doxoon ci diggante Dame Sène ak ki nga xamante ni mooy Ndandi Fall mbokk yi gis ngeen beneen Dame Sène wane waat na boppam ci wàllu bëre wane na boppam ci wàllu xarañ wane waat na boppam ci wàllu respecté bis bi nga xamante ni jox na ko bis bi tey Dame Sène ñu ngi koy félicité bu baax di encouragé euh, Ndandi Fall Ndandi Fall xale la boo xamante ni na góorgóorluwaat ñëwaat ci làmb bis bu nekk bëri na ko ci làmb xëy na nag bisu defet moom du bisu ndam Ndandi àndaatal ak say mbokk àndaat say ñagañaale àndaat ak ñi nga war a àndal ñëwaat ci làmb ndax loolu baax na ci yow ndax làmb da laa soxla ñëwaat boo dellu si waatee la ñuy xam ba xam defet bi nga am metti la wala déet Ousin loolu moo xewoon fii. Baye Djili maa ngi leen nuy nuyu bu baax a baax tey li leen fi àndaloon Baye Djili ak Ousin gis nañ ñi nga xamante ni noonu la daan di faal bëree gis nañ ñi nga xamante ni noonu la daam seen bëree waaye daam dafa bokk ci làmb daam seen kenn mënul lim làmb te doo ko ci boole daan di faal nag li mu nekk ay jafe-jafe la rek wala boog ay tolof-tolof la waaye làmb demee nii làmb ñett ñoo am victoire défaite match nul loolu dafa bokk ci làmb saa booy ñëw victoire nga andi mais saa booy ñibbi doo xam loo yóbbu waaye di ko wax na di ko encouragé di félicité ki nga xamante ni mooy Ndandi Fall waaye bàyyi ji li dama ñëwaat ci beneen combat ci diggante Thiat Fora ak Ardo Thiat Fora ndaanaan la ci làmb espoir la bii Fora ga mu nekk bii jàmm gën ga mu nekk waaye dafay tase ka nga xamante ni bàyyi ji li ñoom ñaar ay naataangoo leen ci wàllum taay wàllu bëre tolloon ñu doole waaye boo xoolee làmb ji dafa des ay finition boo xoolee ni muy daanoo fi fi muy daanoo